waaw effectivement boo xoolee tey euh, moo nekk laa date officielle Euh, le démarrage des ci parrainage bi ñu jëm ci élection euh, février 2024 bi ñu jëm. Mhm. Euh, ce matin même j'étais parti au niveau de la direction générale des élections accompagné de notre coordinateur national Bérouba Guissé mi nga xam ne après moo moo yóbbu moo eggali opération bi ñu fekk fa mbooloo bu takku. Mhm. déjà ak seen confrères yu bari bari parce que dafa nekk journée boo xam ne il faut faudra il faudra pas que mu nekk journée bu ordinaire journée bu solennelle la. journée boo xam ne ça marque un pas vers élection yi am sur pare mu nekk journée boo xam ni dafa décisif. si fi ñu jëm parce que lu nekk ci xaj à partir de ce moment ñenn ñi danañ jàll à partir de ce moment ñenn ñi parrainage bi ñu dem tey fa yem voilà mu nekk loo xam ne aussi c'est extrêmement important comme nu nga ko waxee ma nekk le secrétaire national mhm. chargé des élections au sein du grand parti may nuyuwaale au passage sama leader El Hadji aussi euh, si confiance boobu mu am ak l'ensemble des militants et sympathisants du grand parti mhm. ak coalition Gakou bi au passage euh, Ahmed Aïdara seen collègue euh, que dañ ko mhm. ko amèrement aussi aussi jàpp ni dañ ko dund injustement aussi parce que les chiffres sont là avec le nombre de régions yu ñu validé woon le nombre de plus de mille parrains validés par le conseil constitutionnel dix régions onze régions validées mais éliminées par des doublons mhm. externes ñu jàpp ni tur yi am na fi ak fee donc suñ ñëwaatee parrainage fekk si waat ñuy préparer élection 2024 dañ koy jar au sérieux nga soulever nag point bu am solo muy le nombre de candidats à la candidature mhm. mhm. euh, mais da nga ciy benn analyse boo xam ni man dama ko bëgg a def analyse du point de vue légal mhm. ba pare def ko aussi une analyse du point de vue politique voilà du point de vue légal lu tax may wax nii dafa nekk loo xam ne malgré que sénégalais yi ñi ngi jóg malgré que ñu bëri ñi ngi wax mais lii lan la doonati ku jug ne candidat la ku jug ne candidat mais la question que l'on se poser mooy mhm. est-ce que dañ jalgati yoon mhm. est-ce que dañ defoon lu ñu def est-ce que am nañ ci droit ou pas parce que boo xoolee suñu disposition constitutionnelle à travers l'article 28 moom dafa indi des critères ne pour être Séné euh, président de la République au Sénégal il faut avoir 35 ans mhm. minimum maximum bi nekk soixante quinze ans savoir lire et écrire parler couramment le français ba pare aussi être de nationalité exclusivement sénégalaise donc bu fekkee ni loolu noonu man dama ko dajale yow nga dajale ko kii dajale ko ñu ne élection présidentielle dafa ñëw ñu jóg ñu ne ñun dañuy def nekk candidat moo nekk su la bannière d'un parti ou d'une coalition ou candidature indépendante bu leen nit ñi attaqué ak qu'importe statut boo mënta am sa personnalité euh, jar nga dara si kanamu nit ñi wala jaroo dara si kanamu nit ñi bu leen nit ñi attaqué yow da am répondant au point du point de vue légal da wax ne mais attends man lan laa sama yoon nguur moo ma may lii sama yoon moo teg lii pourquoi ñu dem ko maintenant le côté bi nga xam ni tey dafa dem ba dafay enlever l'élection présidentielle de tout sa Euh, en tout cas euh, nu ma ko mënatee de toute son importance ak caractère solennel bi mu am mooy indi tey li nga xam ne dañu dem ni wax dëgg fa yàlla euh, bu la ko yoon mayee it Olof Njaay dafay wax cuut dee xam lekk xam parce que tamit élection présidentielle la wax. c'est quelqu'un qui va prétendre à la destinée aux 17 millions de Sénégalais voire 18 millions de Sénégalais. mu nekk leen loo xam ne dañu jël suñu souveraineté interne ak externe jox la ko. ne la li jëm ci biir réew mi li ci war a dox dans les édifices publics les institutions publiques lui déterminer la politique de la nation la cohésion sociale sa loxo lañ ko teg. Mhm. wante aussi la souveraineté man sénégalais laa rek doyul ba nga ne a. nga yaakaar tout au début. dama foogoon c'était un jeu que <laughs> ah, ah, ah, dama foogoon loolu la parce un jour gis naa ko wax dama ne bon est-ce que nekkul gars yi ak logiciel yi. mooy defar Serigne ñëw toog defar benn affaire rek kan à mais bi ma defee bon dama foogoon un jeu la. Oh, dama foogoon mais après laa gis ni ndekete c'était une réalité parce que dem nañ bay ba ba dañuy woote des des des cérémonies de lancement de leur candidature après même bu fekkee ni wax dëgg fa yàlla salle ba bu tolloon nii sax du fees mais te na sewut dañuy wax moo tax gis nga du fo du kaf du caaxaan mhm. yow président de la république ma je pense que boo réfléchir mille fois sax da nga kaa waroon a daw sax au nga naan da nga koy song parce que ndama ngi si gàccee ngi si eh kasoo ngi si liberté mi ngi si mhm. donc suñu toogee ba toll foofu tey ku jóg wax dëgg ne candidat gi dafa mel ne léegi dañu war a jël Sénégal partitionné ko secteur bu nekk kenn am naa candidat du ay caaxaan léegi nag moo tax ma ne du point de vue légal doyul rek nga layee ko mhm. parce que du point de vue social ak du point de vue politique dafa nekk loo xam ni da nga fi war a nekk ñu xam ne soo yëkkatee sa loxo rek dañ naan ah waajaa ngi ni xam nga tey mbër yëpp dañuy ut licence CNG mhm. wante wax dëgg fa yàlla mhm. yaaw jaal bu demee fekk ji Modou Lô ne dafa bëgg combat dañ ne ko mbër nga waaye nag xara ba yegg ci kuuru kaara bi. Mm-hmm. donc yamal ci combat boo tax ma ne cuuj day xam mm-hmm. lekk donc on peut on peut euh, avec euh, ça mun nañ justifier tey jii nii euh, parrainage bi quand même am na ci solo. wii xam nga parenage bi boo xoolee comme nu nga ko wax am na solo sax même bu nekkoon ni candidat yi bëri nañ bëriwul ci benn côté xam nga parrainage dafa am son caractère positif am son caractère négatif. Mm-hmm. looloo tax mu naqaree. mu naqaree attaqué en même temps loo tax mu naqaree jëmmal xam nga son caractère positif. boo ñu doon tënkal le caractère euh, négatif lan lay nekk. non xam nga le caractère négatif dafa am principe boo xam ne dafa nekk ci article 4 de notre constitution mu nekk un principe libérateur daf ne euh, les coalitions de partis politiques ou les partis politiques ou candidatures indépendantes ont la liberté d'aller concourir au euh, suffrage des Sénégalais. xam nga kon électoral pour ñu mën a yegg foofu léegi nag su fekkee ni tey dafa nekk loo xam ni euh, dañ ko fi teg euh, si façon bi ko sénégalais yi am amee parce que parrainage en son sein rek dafa nekk un moyen de filtrage caution moyen la buy filtrer âge bi ñu wax 35 ans la ku am 34 ans mun na compétent pour jiite réew mais bu ñu nee 35 ans moyen la encore pour filtrer parce que bu ñu newoon tout sénégalais rek di nga dem dinaa dem sénégalais eh bu ne dem mm-hmm. mais suñu nee âgé de 35 ans mooy exclure nañ mm-hmm. ku dem 34 ans ak ba ba si sax bu ñu nee suba la sa anniversaire bu nekkee dañ ko yemale 75 ans mooy ku am 75 ans et plus mënatoo nekk donc yooyu yëpp ay moyens de filtre ak caution 30 millions élevé waat ko mais parrainage bi lu tax mu nekk lu grave mooy Sénégal daf ko indi mais daf ko jaayee si anam bu baaxul. jaayee si anam bu baaxul mooy dañ ñëw. dès le départ ñu ne parrainage am na am na am na Sénégal dañuy créer des conditions yoo xam ne am na candidat yoo xam ne boo validé wul lii nii doo jàll. mais si saa si au lieu régime bi nekk en place vulgariser ko jaay ko wane ko mais dañ ñëw dès le départ. ak ñu nga xam ne ñoo nekk soit de faux porte-parole parce que gouvernement bu gis dafa am porte-parole génn dès le départ di wax li ñuy am si candidat muy cinq. génn dès le départ ne dañuy am pourcentage bi si élection mhm. génn dès le départ wax ñii ñooy dem mhm. ngay dégg si ay nit yoo xam ne dëgg la du dëgg mais la ñu waxoon yëpp mu nekk des coïncidences troublantes mhm. la ñu waxoon yëpp moo am ci élection bi cinq candidats ni ñu toppalantee si dépôt yi premier deuxième troisième noonu la toppalantee si résultat yi mu nekkoon bu Abdallah Dionne mii nekkoon candidat tey waxoon na ñaata candidat la ñuy am ay juma jam jaxate mu bokkoon coalition waxoon na am donc a dem élection nga war a ay parrainage boo xam ni euh, dafa war a ñëw permettre restriction la rek pour une rationalisation des candidats mais c'est pas pour une élimination des candidats parce que bu fekkee ne respecter conditions yi mhm. loolu la point positif bi nag tey boo xoolee tey li xew tey tey je pense que xaw ma ñenn ñi ngi naan deux cent j'ai lu soixante quinze ñoo xam ne ñëw nañ nekk des candidats à la candidature mhm. ñëw man demoon naa fa sax ñu ubbi liste sax lañ ubbi nag comme étudiants yi ni ñuy def bu ñuy fay. on parle de sans retrait candidat à la hmm. candidature donc je pense que fo boobu noonu mooy am lenn tamit dafa am tey direction générale des élections foofu sax tey xoolee naa leen fa maa ngi naan lii de bàyyiwuñ ci xel mooy yàpp de contrôle nit mun na jógee sax si jumaa omarienne bi ne candidat indépendant la daa bind turam dem dugg d'accord dem dugg parce que dafa am ko taxaw ma taxaw ñuy bind suñu tur man su ma duggoon sax ne candidat indépendant la damay dem ci formation bi bi Birame seen di def toll itam donc tey su amee nii nii dañ jàpp ni lu baax la waaye dafa am tamit leneen loo xam ne mi ngi si biir mhm. mais ñu si bëri nekkuñu seen candidat seen sagog bopp ñu si bëri dañ nekk candidat ne dañu am coalition wala dañuy woote coalition pour cëru pour ëllëg bu fekkee ni coalition yi danoo woote mhm. ñu ne ah conseil constitutionnel le 20 janvier ñii la jàpp ñoom ñu ñëw ne ñun ay candidat lañu woon dañoo yor mouvement dañoo diriger woon pour toog eh eh, yóbbaale eh, ay affaire et aussi aussi pour un CV personnel ah man de élection 2024 mhm. j'étais candidat dem bind ko sa mhm. parce que loolu gars yi dañu bind si CV j'étais candidat à l'élection yóbbu ko si ay ONG réew mi dañ ko war a respecté cëre la ñu am xam-xam cëre la ñuy mën a liggéey si état cëre la ñu am profil cëre la ñi nga xam ne dañoo transparent cëre la ñi nga xam ne askan wi dañuy dund ak ñoom nekk ak ñoom ba pare di di di xam seeni problème fa seeni koo demee gis nga audité président bu amoon Sénégal sax waroon na faa yegg d'accord merci beaucoup professeur